bu ñu demee ci alxuraan. Mhm. yàlla suñu boroom dafay def nguur ci sabab dafa indi ku ñuy wax Alexandre le Grand mooy Zulqarnayni won ñu ci Suleymaan bu nguur gu nekk mu wax ni sabab bi lii la mu ni kii bëgg a nguuram nag day topp sabab bi summa tabaa sababa sabab boobu boo ko bàyyiwul doo folleeku sababu nguur ci démocratie mooy la popularité nit ñi bëgg la def la seen xol ku ko am am nga gànjar gi war a tax nit nekk nguur nekk li ci des nag lii ay technique la lii ay nàngam la lii ay nàngam la waaye sabab bi joxe nguur bu yàgg sabab bi daan tox nit falu buur mooy nga am doole physique mën a xeex am stratégie tubaab yi li leen jox nguur mooy créer ay armes mm-hmm. ñëw forcer ñu not suñu maam yi suñu maam yi yor ay yat ay jaasi ñoom ñu yor ay kanu ay nàngam loolu moo leen jox nguur donc euh, nguur sabab bi ci démocratie mooy nit ñi waa réew ma bëgg la parce que ñooy joxe pouvoir ñooy délégué te kenn du warante ni Ousmane Sonko réew mi sénégalais yi jeunesse bi réew mi mag ñi ndaw ñi moom lañ bëgg. Mhm. kooku man imaam laa mais du ma wax waxin woo xam ni ku ko làmb doo ko daj.